waaw defe naa kon li ma xalaat rek moom mooy mbir mi da nga ci daf la daf yu bari daf la ci réere mbir tey dafa am lu lu xew moom mooy dañuy inauguré Zampa bi moom la ñu waxtaane fekkoon da ngeen ma woot ñu waxtaane ci yeneen programme yi ñu am ci artisanat yëpp. mais mën nañu discuter de lépp de mën nga wax de. dama lay benn ponk la benn ponk la moom moo ñu indi tey. Mm-hmm. moom moo tax ñu waxtaan ci nii nekk dañ koy inauguré mais lenn moom am na. sunu programme. li ëpp ci sunu programme moom mooy wutal ñi nga xamante ne ñooy artisans yi li foo xam ne mën nañ faa liggéey ay atelier yu moderne loolu moom mooy sunu objectif bi njëkk mooy wutal leen ay atelier yu baax. bi man xaar ma terminer sëñ bi je may ma ma sëñ bi may ma ma sëñ euh, kon moo tax ma ne da nga réerale mécanicien ci artisanat la bokk. Mm-hmm. artisanat 126 corps de métier la. moi je suis pas du sa d'accord la ñuy laajte dañuy laajte lan mooy définition bi artisanat mu lu waaye di liggéey ak ci sa loxo te dañ dañ la cee tàggat loolu mooy artisanat mm-hmm. su fekkee nag da bëgg indi beneen définition nga woo ma ma la ci mais damay wax koo xamante ne da liggéey ci sa loxo mm-hmm. ba pare ñu laaj ci liggéey bi laaj tàggat loolu nag dafa am cent vingt six corps de métier te 126 corps de métier ça fa fermé fii ak tuuti dina am métier yu bees yu créé wu. ci dooleeku. 126 corps de métier yi ñetti pàcc lañ ko xaaje benn pàcc bi moom mooy artisanat d'art mooy bi nit ñi xam mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk village artisana yatt yi ak yooyu. Mhm. ñaareelu ponk bi mooy artisanat de service mooy ñi nga xam ne dañuy defar ñoo ëpp fuuf fuuf fuuf. ñi ngeen xalaat na ñooy artisan ñooñu ñoo gën a néew artisanat de production moo ci ñetteeli pàcc bi artisanat de production mooy ki nga xamante ne moom mooy kiy defar te ñiy defar noonu ñooñu tam ñoo gën a yaatule mooy tailleur yi mooy yooyu yëpp production la mooy maçon yi ñoo ñëpp production la ñooñu ñoo constitué quatre-vingt-quatorze pour cent des artisans yow ñi nga xalaat ne ñooy artisan ñeent lañu ci téeméer boo jël. mais mais xam ma terminé kon ma expliqué la pour nga xam. mais mais damay après da ngay expliqué rek wax ma jàngal la. d'accord wax ma ma jégalu ma jégalu la ma sëñ sa élève donc ma sa jàngal ma nga jégal ma. nga jégal ma du sa professeur mais soo ñëwee ci di wax loo xam ne maîtriser woo ko. non bul wax maîtriser woo parce que. parce que li nga wax ni ne ne arte ne mécanicien du artisan. loolu xaaral ma jox la sama point yaa ngi maa ne yaa ngi. mais xaaral ma jox point bi xam nga la moo tax parce que si yoon soo demee si dëkk yu nga xam ne malheureusement peut-être ñu on n'est pas développé boo demee si dëkk yu nga xam ne les mécaniciens ils travaillent pas avec la main il travaille avec des machines man foofu laay waxee. loolu moo tax ma lañ foofu ba tey. non non kuy non kuy liggéey ak ay machines je suis désolé. artisan lañ artisan kuy liggéey ak ay machines artisan. seen même ak machine. boo xamee ne sa loxo la non non mais mais non dama dama la bëgg a wax ne. alors Pape la question ah comme ça ñu avancé ci leneen. dama ko doon moom moo dugg foofu dinaa xaw ma damay jàng. dafa am industrie dafa am industrie. ak artisanat question laa ko posé. artisanat mooy ki nga xamante ne artisanat mooy ki nga xamante ak ay équipe ak ay équipement d'accord industrie moom mooy su fekkee dafa dépassé léegi nag euh, fabrique euh, tabax defar ni ba léegi yaa ngi dem ci machinerie boo xam ne léegi yow yaa ngi jóg ci industrie fii mu ne nag fii mu ñun ñun fi ñu toll ñun ci artisana lañ nekk